مسلما لديك مسلم عليك gannaaw nag bi nga xamee ni sëriñ bi dellu si na Brescia gis noonu daayira soxna jaaro bi nga xam ni euh, soxna Ami sàmb mi ngeen gis noonu euh, mooy euh, nekk ci bopp bi ak mbooleem ñi nga xam ni ñoom la àndal liggéey bi gis noonu itam sëriñ Basirou Dia di ko wax it taxawaayu ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci gannaaw sëriñ bàcc meng di waa waañ wi taxawaay bi nga xam ni ñoom it ànd nañ kook daayira soxna jaara bi di soppey maam Cheikh Ibrahima Fall ngeen gis leen noonu ak euh, ànd gi nga xam ni àndandoo nañ ko col gi loolu yëpp mooy euh, waaj nag tàggatoo gi nga xam ni moom la ñu euh, tàggatoo ak Serigne Mamour Mbacke fii ci kër Serigne tubaay gi nga xam ni moo nekk ci. Gracias. ñoo ko ba pare ba Gracias. ñoo ko film asalaamaaleykum wa rahmatullahi yow Cheikh Mamor Mbacke ak mboolem njabootu borom Touba gi fi teew ñu ngi leen di nuyu ci turu njabootuk sëriñ Touba gi nga xam ni ñoo nekk fii ci Touba Brescia ak turu taalibe yépp di leen siyaare di leen massawu coono yi di dolle sant yàlla bu baax a baax ci teew gi nga xam ni teew si ngeen ko fi ngir yeesalaat jéego yi nga xam ni moom la sa waajur wa daan dox di ñëw fii ngir yokk li nga xam ni lii moo taxan Seex Ahmadul Xaddim jóg te am cër boo xam ne bii moom la ko ci sunu boroom féetaleel aman nañu am tiit lool aman na nañu njàqare lool waaye nag sunu xel dolli naa dal eh, sunu fitit dolli naa dal ci fër-fër ja nga xam ne nekkoon na ca ndax bi sëriñ bi làqoo ci sunuy bët ku ko wax ak ku ko waxul kenn ku mu doon ku nekk am na loo xam ne lii metti la wan na la ba nga xam ne bii mënoo ko tudd sa làmmiñ waaye nag alhamdulilahi rabbil alamina ba nga xamee ni ba nga jógee tànk ya nga xam ne moom la daan dox amul lenn loo xam ne lii gis nanu doxin woowee dara soppiku ca kon ñu ngi lay jot li nuyu mboolem njaboot gi di góor di jigéen di mag di ndaw ndax ba ñu tàmbalee di séentu bis bi ba tey eh, ni nga xam ne nii ni la sëñ bàcc ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite waañ wi eh, sëriñ Fallou Mbàkke mi nga xam ni mii ci wàllu culturel bi ñoo ko yor sëñ ma dikk bi tey ci wàllu tali bi eh, sëriñ Sam Diop mbooloo mi mu àndal ci wàllu xasaayit yi soxna ami sàmb ak ñi mu àndal ci wàllu soxna yi daayira maam jaara busa sëriñ moodu mbaw ak ñi mu àndal ci wàllu lépp lu ñuy lijjanti lu jëm ci wàllu kayit ak mboolem mbooloo mi kenn ku mu ci doon ku nekk la ca war yaa ngi cay def sa kem kartan ngir bis bi mel na war a mel kon alhamdulilahi rabbil alamina ba nga xamee ne népp nuñ ko doon séene kowena na ñu ngi dollee sant bu baax a baax di leen dollee gërëm te di sàkku ñu dolli noo ñaanal ba la nga xam ni moom la sa wayjur wa waxoon ni béréb bii dafay ñaan mu nekk làmpub lislaam loole sunu borom dimbalu nu ci ba nu mu ko séentoo woon bëgge ko noona mu amee lu ko we njort